muy Serigne Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér bali mu naal ci njaboot gi ak xeet week askan week taalibi sariñ Touba yi yàlla defal ko ni mu ko bëggee di ñaanal Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Sam Mbacké Ndoulo mu yàgg fi lool te wér di xalifa Serigne Sam noonu it la ñuy ñaanale Serigne Abo moom Cheikh Mahamadul Fadal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal nag sunu Serigne sunu. lépp muy Serigne Abdou Karim Mbacké Fallilou mu yàgg fi moom it loolu te wér di siyaare mbokki jullit yëpp ak mbokki taaliba yëpp ginnaaw loolu nag dana am bis bu ni amal boo xam ni ñu ngi koy amal fii ci ndaamaatu Ndamatou corniche Serigne Modou Bousso Dieng euh, muy ab bis boo xam ni ban ko dalee def bii mooy ñeenteeli yoon bi ko dalee def ak léegi di ko def ngir fàttaliku mag ña. di ko def ngir dajale mbokk yi di ko def ngir sàkku ab yool tuyaaba bu jóge ci yàlla suñu borom muy bis boo xam ni sunu waajur lañ koy defal sëriñ Sam Mbacké Ndoulo waaye nag ñi ngi dara jaale bis bi leen naan parrain dañ koy wax parrain à vie Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fadil ñu ànd ci ay mbokk yoo xam ni ku mel ni Sonact point com nga ni mooy jël mooy nekk nii di télé boo xam ni site boo xam ni ñëpp war nañ ko xam ndax euh, lépp loo xamante ni daa soxal diine ji ak lu jëm ci Serigne Touba mu ngi koy jàllale bu baax a baax a baax di ci def kem kàttanam ndax sunu sëriñ Serigne Abdou Karim ku ne xam na ni am na ci xeeti mm, kaddu yoo xam ne mi ngi ko jëmalee ci. Eh, yoon wi di ko jëmale ci mbokki julli de mbokki taalibe yi mooy loolu mu faral di ko di ko di ko jàngale bis bu set rek muy makaarimal axlaa di jikkoy rafet keroog ba ak acte ñëwee yaakaar naa lu jafale ci sëriñ bi waaye fa saas rek dañ ko bëggee dañ ko amee te loolu muy ak yokkute di ko di ñaan mu doon ay télé télé waa ñëpp xaj ci ndax kat télé nekk ci réew mépp ku ci nekk yenn a bokk yéene ginnaaw loolu ñaandu koog sunu. meneen mbokk muy xelkom auto automobile di sëriñ Mame Balla Mbakke ak yeneen mbokk yi ñi ci des yëpp ñu ngi ci woo ñëpp nag eh, di ci woo ñëpp ndax lu baax rek lañ ci jublu ak tamit la mag ñi bëggoon rek ñu daal di koy def ginnaaw loolu nag dañuy santaat sëriñ Tuubaa bu wér moom mi nga xam ne moo waral lépp ndax moom mi ne yaa maalikal mulki yaa man jallaan xawadin irham jami xal wara yaa hadi arada ba tey muy amee bis bi boobu ñu koy amale ci weeru Kazu Rajab di bisub Cheikh Mouhamadul Fadal bi nga xam ni tey jii ñëpp a moom sëriñ waaye ku ku jaaxle ku yaa ku bëgg ku bëgg dara mu teew rek sëñ Fallu ngay woo kon ndokk bi muy amee ci weeru Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne heure bu ñu jàppee eh, bisu eh, fani Kazu Rajab gi eh, bisu Kazu Rajab gi ci la ñuy jàppee bis boobu ren mu tomboog la 16 avril di bun Kazu Rajabee ba altine ga incha allah di ci. te teewaayu jullit yëpp rawatina taalibe yëpp ba tey bis boobu mooy ni ma la ko waxee sànq préavis alaaj baara la waaye nag maa ngi ko dara jaale Cheikh Abdoul Karim Mbakke moom Cheikh Amadou Fadal li waral loolu mooy nit ñi ñëpp bëgg a baax ñëpp bëgg a tegu ci yoon xëy na nag réer rek waaye sëriñ bi moom dafa jóg te suñ boroom moo ko def ci yoon wi ñun ñëpp képp koo xam te ni sant nga Mbakke képp ku sant Bousso képp muy seexi sëñ Tuubaa yeeg ñëpp maa ngi sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko mu yàgg fa lool te wér ndax kat keroog ba sëñ Muntaxa toogee di sëriñ Tuubaa dañuy day na ko ñëpp ñaanal mu bañ wéet ci dara waaye man day dama ne ko Mbàkke mu ne ma ne ko yow koo topp ci ginnaawam du wéet mukk kon nag ñu ngi santaat ñëpp euh, di dellu di julli ci Yonent bi di sant sëñ Tuubaa fu nu toll di ñaanal sëriñ boobu mu sëriñ Mouhamadul Fadal mu yàgg fi. di ñaanal nag sunu sëriñ sëriñ Fallu Mbakke bu sëriñ Sam du la di ci woo njabootu sëriñ Sam gépp nga xam ne ñoo bokk bis bi bis bi nag ñun moom mooy li wax ay taalibe rek lan lañ ci daal mooy la mag ñi bëggoon rek dajale mbokk yi jàngal xuraan berne ñaan ba beneen doon ci barke Sëñ Tuubaa maa ngi ñaan ko fa teew maa ngi ñaan ko fa teew yàlla na sëriñ Fallu fa ci aajo biir ak biti asalaamaaleykum